<laughs> bien joué bien joué les Kaolack waa góor jigéen bi sonn na nag yee waa Kaolack nag dellu nan ind nag waa Kaolack nag dellu nan ind ña taali néew <laughs> waa góor waaw góore waay waa Kaolack na ngeen def ak coono maa ngeen jàmm waa de kontaan na ba dee félicitations les jeunes patriotes di Sénégal et félicitations à tous les Sénégalais nii dong la de lii de buñ ko defoon buñ ko tàmbaloon bu yàgg ba tey góor jigéen jeex na ci monde bi rek yee waa nag maa leen amal maa leen amal xas bare bare bare bare bare rek yee lii moom xanaa corruption de la góor jigéen la lii lu mu yée yée yée na ngeen def nag mbaa ngeen yebu leen ah waa Kaolack nag daa jeeti ngeen te geeti ngeen aas de <laughs> waa Kaolack te geeti ngeen aas yée yée yée jigéen bi boyal nañ ko nag waaw noonu la de parfois nag dañuy xaw a changer religion tuuti sax dugg Inde génnaat ah baax am réew parfois day changer parfois nit ñi xaw a changer soppeeku sax waa Kaolack kontaan ci yéen de waa Kaolack de moom démb Inde la ñu dugg rek layam layameeg moom. waaw ab góor jigéen góor jigéen boy rek nii la néewub góor jigéen amul place ci armée yi Sénégal yi nan waxante dëgg nag néewub góor jigéen amul place ci armée yi Sénégal yi góor jigéen bu ñu jàpp buñ fekkee ngay dund sa vilebrequin bi dañ ko war a dagg sa cucu bi buñ la jàppee fekk ngay dund dañoo war a dagg sa cucu bi nga nekk samba noqub neen di layam layam ba faatu boo faatoo nag xel yépp daal dem end nag ñu jël la boy la ba nga boy taal la ba nga dóorub doom def la ci ci bitéeli verre jox la say mbokk loolu xalaat la xam nga li solution la bàyyi màkk lii wata ko assemblée góor jigéen koor góor jigéen boyal lii wata ko assemblée lii xalaat la màkki na nga def ak coono mbaa kenn yow la e lii am kaw la xalaat la kat waaw góor jigéen moom bu faatoo dem ba dem yomal xuloo jël basar nan ko boyal da koy teggi sax bàkkaar waaw ah, peut-être ko booyalee bu dem yàlla moom bari na de waaye nii waa Kaolack def de kontaan naa ci de lii de xam nga ne xalaat la nii xalaat la inspiration quelle inspiration de l'année góor jigéen boyal <laughs> waa Kaolack man seen talagi pur man ci teug ak fecc dong <laughs> la yam waa Kaolack am talent nag yee Kaolack nag yéen am New inspiration ngeen am ba créer lii new mom tal rek new new gor jigen boyer rek boyer mais li xalaat la félicitations à tous les jeunes wa bu rek ñor na na fu rek wa ah, wala mu fatu boyal parfois dangay changer religion xaw a doon Inde dem Inde tuuti parfois nga changer religion xaw dem Inde xam nga ni lii sama xel mi bi ma dégg ñun dañoo taal néew góor jigéen bi sama xel mépp ci Inde la dem la ci ñoom Aminata Basan sama xel ci ñooñu la dem ay ñoom Aminata Basan ak yooyu lii xam nga ne xalaat la nee def ak coono waaw góor liggéey la de bu xaay rek ñor na layam layam ak moom nag waaw jërëjëf Seydina Ousmane Sonko nee def ak coono mbaa ngeen yabu leen